déglul ma wax la Moodu Fallu laay nam ngeen ne góor ña naa ca teg di laay ma a doon nu mboot yoon ca maamam mu dellu donnu mbon ya woon ca baayam ca maamaam mu dellu donnu ya woon Cheikh Modou Amin Tapal waxul ne doomi Seex la taxa koy mbuura guddeeg ba ca ko nit de duñ ko sóoro tax muy góoram bu dégg ba ca ko ni Cheikh Modou Aminta Fall ngir Modou Fallu siptu ñaari seex la si wàllu baay ak nay noo balla fallu sibtu ñaari seex borom Madina Fall sëriñ mu doon ndax am nii nga mel daa yombul ndax am jom ak am mel daa yombul ne jam mooy cey fallu doomi am de sayongo sadama mel ni gay mel na gay de gun jam mooy cey fallu Cheikh Modou Amin Tafal tay yëngu sanaama mel ni gayra gunjëm may cey fallu doomi am la tay yëngu sanaama mel mel ni gayra Cheikh Modou Amin tafal ndëmb jib jëf jël la Modou Mbako dongom ya ismulaay lan fay dengo jëf jël la Modou Mbako Modou Mbako sëriñ moo doon mbiiri wiiri uy ji fàllu laay kalyeer badar ja dekki waa wallaay lu mbiiri wiiri uy ji fàllu laay fàllu laay kalyeer badar ja dekki waa